لمن الذي عنه المدير قصير خذ له من الذنب والآفات وهو غفور له تبت من عيب دفاعتي لخيره ومني له عهد علي ضمير لو تبت ثابين وأرجو رداءه ومني له شكر يدوم كثير فجئت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 hamaani halaa maahin maal absa wa safar bismillaahi rahmaani rahiim euh, ñu fas yéene rek tàmbale suñuy kàddu di ziar ak di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi toogal Cheikhul Khadim yàlla suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi tànd ak wér te li mu ci yoonu Cheikhul Khadim lép ak lislaam ji suñu borom defal ko ko di ziar itam njabootug Sëñ Tuubaa gépp euh, tey ji nag li ñu fi dajale mooy màggalu seexul xaddim gi di bis boo xamante ne euh, daj na ci lu ne ba suñ borom fay ko ci loo xam ne mboolem lislaam ji xaj nañ ci mu woote ci ak cant ngir ñëpp jariñoo ndax buntub cant bi mooy tax ñëpp jariñoo euh, ñu gis ne nag bokk na ci li am njëriñ ci ñi màggal si ak fu ñu mën a bàyyi ko ñu yóbbaale loo xamante ne buñ demee dinañu gën a xamaat kan mooy sëriñ bi dinañ xamaat lan mooy li nga xam ne mooy ndigali sëriñ bi ak jàngaleem ba bu demee bu ñu demee mu amal leen njëriñ fa ñu jëm loolu nag moo waral Hizbut Tarqiyyah naka jekk mu xam ne liggéey bi dëgg la bernde la waaye liggéey bi bu ñu berndeelee yaram yi ci lekk ak naan war nañoo berndeel ruux yi ci xam-xam bu am njëriñ moo tax nag euh, ñu def liggéey boo xam ne naka jekk nañ ko daan defee ren nag dañoo dikkaat ak ay tablette multimédia muy livre multimédia yoo xamante ne dafa doon multilingue nga xam ne euh, liñ ci jublu mooy jamono moo toll foo xam ne xam-xam yi faw nga tërale ko noo xamante ne nit ñi amatuñu jot waaye boo ko jotee rek li nga bëgg lépp ci xam ko ci sëriñ bi ci yoonu murit ak ci Touba daf lay gën a yomb ci langue yëpp nag muy anglais muy français muy arabe muy wolof lii nag dañ koo jël teg ko ci loxol comité d'organisation ci njiital Cheikh Mamadou Bachir ngir gan ñi muy officiels yi muy ambassadeurs yi ak ñëpp buñ ji buñ dikkee lu bokkut ak téere yi nga xam ne dañ leen ko jox naka jekk lii bu leen ko joxee moom faw xam sëriñ bi xam yoon wi dafay gën a gaaw kon loolu moo doonoon objectif bi ñuy santaat ci li nga xam ne mooy collaboration bi ñu mës a def naka jekk Hizbut Tarqiyyah nag innovation technologique dafa mës a doon yitteem ndax li ko tax a jóg moom xam nañ ne vulgariser maanaam jàngaleem sëñ Tuubaa nu mu gën a yaatoo. waaye loolu dafa dugg rek ci biir processus boo xam ne amul fu mu yem jël noot xam-xam noot technologie jébbal ko lislaam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. de euh, d'adresser des prières les plus déférentes à l'endroit de notre vénéré khalife Cheikh Mouhamadoul Mountakha pour une longévité sans faille et une santé sans commune mesure. Nous adressons également ces prières à l'endroit de l'honorable famille de Khadim Rasoul et de tous les disciples et de tous les confrères musulmans. Nous sommes en train de vivifier, d'exalter la grandeur de Dieu à l'occasion du grand Magal de Touba. Euh, nous savons également que c'est une occasion d'offrir à manger et à boire à tous pour rendre grâce à Dieu, mais c'est également une occasion pour vivifier la science et les connaissances. Donc c'est pourquoi plusieurs innovations technologiques pour aider les fidèles, où qu'ils se trouvent et d'où ils viennent, à pouvoir s'abreuver de cette source intarissable qu'est Cheikhoul Khadim. Hizbut a toujours donné une importance capitale aux sciences et à la technologie, mais dans les seuls desseins de les apprivoiser, de les dompter au service de la religion. Hizbut Tarqiyyah, cette année, est venu avec un livret multimédia, multilingue. se livrer, d'abord avec une page d'accueil automatisée, mais aussi avec des options multilingues qui renseignent sur les connaissances essentielles à maîtriser par le pèlerin sur le Grand Magal de Touba, la mission de Khadim Rassoul, la ville sainte de Touba et le sens et la portée du Grand Magal de Touba. Nous savons que le Magal, c'est un creuset de valeurs. Un jour qui réunit, qui réhabilite toutes les valeurs fondamentales de l'islam sous la férule de notre vénéré Cheikh Khadim Rassoul. Donc ce livret multimédia et multilingue, français, anglais, arabe et wolof, a été remis gracieusement donc au comité d'organisation sous la guidance très éclairée de Cheikh Mahmoud Bachir et Moussi Abdou pour les aider dans les cadeaux à remettre aux autres le jour de la cérémonie officielle. Donc c'est un kit